ay murit yi jug la di delloo sëriñ bu njukkal ci seenu ñaq ci li nga xam ne moom la leen sëriñ bi wërsëgale ñu amoon yëg-yëgu ñëwaat poroxaan gi yeesluwaat ci sëriñ bi ah, nammaa suñ pas-pas ba bu ñu la Touba mën a ci liggéey sëriñ Touba bi ñoo dem ba yëg xam ne delloo sëriñ bi njukkal ci li ñuy liggéey mu mel ne Touba ay ndaw nga fa yi dëkk Touba yi fasantikoo ñu nekk aluminium métallique inox ak fer ñu xam ne sëriñ bi daana toog di am lu mu yittoo ci màggal Touba gi ay jafe-jafe di ci am loo xam ne nii ay mbokki taalibe dëkk ci da gox yi fasante ko ñooy du ko ñu dem ba xam ne ñooy ndoomi Touba ndawi Touba nekk taalibe Serigne Touba ñu ne yëlatut kat ñu nekk ci dëkk bi Serigne bi di soxla dara loo xam ne mën nañ ko mu koy jëggaani feneen loolu tax daayira bi jaayante jóg ngir Serigne bi féete ko ca Touba lépp loo xam ne bëgg-bëggu sëriñ bi la ak lépp loo xam ne xool na ba xool na lii kat buñ ko defee am tawfeexu sëriñ bi daayira bi day def si loolu daare bi nag nekkul daare boo xam ne daare buy buy denc ay fonds la waaye daare boo xam ne nii lépp lu mu xool bëgg koo liggéey sëriñ bi dana ko toog waxtaan ko ñu ngi ko waxtaane jaayante ko sëriñ bi xool lu ko liggéey ñu mën ko teg si mbooloo mi mën a wàcc liggéey loolu waaye daare bi moom euh, lii liggéeyam rek mooy liggéey sëriñ Touba tàmbale ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi njëriñ li mooy euh, sëriñ Touba la ñu waaye nag suñu bopp lañu ñu ndax euh, xame bi ñuy xamee ak doon benn gi ak jàppalante ak social bi suñu biir dimbalante ji amaana yaakaar naa loolu moo gën a amal sëriñ bi ndax ñi nga gis ñu teew fi ñëpp mën nañ cent et quelques personnes yoo xam ne teew nañ fi tey jii te ñëpp ay ouvrier la ñu xam ne ñu ngi dëkk ci biir Touba te it bi moo tax ñu xamante moo tax ñu miinante doon benn ngir sëñ Touba kon mu mel ne liggéey sëñ Touba rek moo ñu may loolu kon liggéey boobu li ma ciy lancé waat di ko soññ mbooleem ouvrier ak mbooleem ku nekk tubaa liggéey nga gën a jàppaat ci liggéey sëñ bi ndax amuñu lu may moom